jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal tey nuyoo bi du gudd ndax suñu xol dafa sedd li ñu toog jàkkaarloog surtout sëñ Massamba Diop Sam muy wali yu yàlla bu mag sëñ Abo Diop lay wuyoo macha allah ñu fas yéene waxtaan ak moom waxtaan bu yàgg ndax li muy li ñu koy gis bëriwul li muy génn bëriwul yàgg a fatu nekk ci xalwa yi nekk tamit ci tey doomu aadama yi. tey ñu fas yéene waxtaan ak moom mu nar a def ay révélation ndax temps yi mu fatu yëpp mi ngi gis actualité réew mi. mi ngi dégg xat-xatu réew mi la te yu ci bëri àddu woon na ci laataa moo fatu tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ci liquidation bi nga xamante ni fas yéene nañ koo def Ousmane Sonko te mu defoon ci lu lu trois mois ci ginnaaw mu waxoon lu mel nii doog a tëju waaye nag dinañ waxtaan ak moom ci divorce bi nga xamante ni nee nañ moo am ci diggante Abdoulaye Diop Xaas ak kii di Sumbulu sëriñ bi dina def ay révélation tey yu am solo ndax ba gëjee génn yàgg na waaye tamit bu ngeen ko gisee rek ngeen profitoo ndax lii ñun rek la ko may te xëy na ñu gëjoot ñu gëjaat koo gis moo tax nag ku mën a profitoo ci émission bi da ci profitoo balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëñ Abo Diop wala yu yàlla tamit nitu yàlla di ñaankatu yàlla mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo ma koy seetaan sëriñ Abo bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala haadi al sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin maa ngi nuyu mboolem jullit nuyoo ba gën a rafet nuyoo ba gën a rafet te gën a yell te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di fay nuyoo yow Mouhamadul Amin yow ak sa technicien di sant yàlla bu baax ci sama jataayoo te ak yéen ndax sama jataayoo ak yéen waxtu wu nekk li may wax rek. lenn rek moom moo di sabab bi te moo di li ma yàlla sédd ci xam-xam ma fas si yéene dimbali képp koo xamee ni tane naa la ca ndax ku nekk la yàlla def ci yow rek ci nga mën a dimbale sa morom doomu aadama te doomu aadama yi du ma dañ mukk di wax ni ñu ëpp ci ñoom dañuy sonn lool ndax fu nekk lañ yaakaar xam-xam dama dem ba yegg fa lan fay fekk wuute lool ak lan fa doon yaakaar te ndegam yàlla may na ma xam-xam yoo xamee ni mën naa cee dimbali doomu aadama bi ba adduna bi baax ba addunaam bépp baax adduna ak alaxira maanaam ba addunaam bépp baax lii warteef ca yàlla ci man moom moo di ma dimbali leen ca te xam ne su ma ko defut boo léegi yowmal xiyaam responsabilité la boo xam ne yàlla dina ma ko laaj te loolu moom moo def summa la tusalunna yow may sin anin nahim ah Mouhamadul Amin maa leen gënoon a namm wax dëgg yàlla dafa bari lool yu ñuy téye waaw moo tax daanaka ñuy gëj di génn waaye ñoo ngi wax ni namoon nañu sappe yëpp ak àndi jàmm yépp xanaa nga may ma rek balaa ma lay delluwaat kàddu gi ma masawu ma masawu gor yi nga xamee ne ñoo nekk fii Sénégal seeni wajur doonoon ay gor seeni maam doonoon ay gor yoo xamee ni xeex nan ay valeur ba tàyyi fii Sénégal ba tax fépp foo dem ci àdduna maanaam koo ni Sénégal laa bàyyi ko moom ci boppam ñoo lay gën a xam ni Sénégal réewu ay valeur la valeur yooyu nag gor yooyu doon xeex tey jii valeur yooyu mën naa ne lu baree bari naxasaay na te lépp moo ngi amee ci Macky Sall ak gàngooram tey jii fii jamono toll fii adduna toll fii senegal toll wallahi ñëpp ñiy wax dëgg te yàlla rek tax xam na ni dëgg feeñ na te képp koo xamee ni Sénégal ñor na la wallahi saw saw fit dalatut mm-hmm. saw fit dalatut lu ko waral maanaam jël jëmm joo xamante ne si ñi ëpp ci sénégalais yi danoo amoon ci moom yaakaar ngir muy dox ak ñun ci njub ak maandute tey jii kooku moom mooy jàdd yoon ba yaakaar ni moom sax moom moom réew mi moo tax daal maa ngi maa ngi masawu gor yooyu nga xam ne ñoo yàgg xeex ba ay valeur yooyu am ci réew mi te valeur yooyu jaar yoonu naxas te yi nag Lamine jëratul daanaka di di waxantoog yooyu déedéet jëru ko ndax ku ne xam na ni dëgg gi leer na naññi nit ki kay day wax dëgg wala mu wax safaan ba rek te yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni assaakitu xanil xaq seytaanul axras maanaam ki gis dëgg ba noppi noppi ca maanaam mook seytaane su mënta wax ñoo yam moo tax euh, na ñëpp yëkkati seen kaddu wax Macky Sall dëgg du ma ni président parce que président institution la moo tax ñi may faral di topp ñëpp duñ faral di dégg ci samay wax président Macky Sall nanu jàll nanu jàll ci biir waxtaan wi tey daal xam naa ni bëgg naa ñu waxtaane lu baree baree baree baree baree bari waaye nag dama bëgg ndax xam naa ne su ma ko njëkkee rek dinaa wax aal kon émission bi du du du du àgg dama bëgg ñu jiital wàll wi ma yàlla may te ma man ci taxaw doomu aadama yi loolu te yàgg liñ ci taxawu borom bi di ma suturaal dama bëgg ñu njëkk ci wàll woowu su ma noppee ñu daal di wàllu actualité ndax bari na torop lu ma war a leeral ci réew mi. wàllum boobu noonu ñëw ci ndax 3 bi ngay tëju. waxoon nga ni Ousmane Sonko képp ku far ak moom na daw protéger ko ndax pexe yi nguur gi di waaj moom mooy xañ ko candidature am 2024. loolu li nga li taxoon nga wax ko dinañ dinañ dinañ ci ñëw waaye dañuy ñëw ci seet ndax am na loo daan wax ci seet mooy képp koo xamante ni mu ngi lay ñaanoo yàlla na la seet loo ba pare. Mouhamadul Amin gis nga euh, li ngay wax nii presque 3 mois wala 4 mois ci ginnaaw maanaam dama dugg xalwatu ba génn. bi ñu ne maanaam fukki maanaam weeru gàmm bi muy teeroo laa dugg xalwatu ba fukki guddeel ba ak benn maanaam gàmm ba ca suba ga laa génn bi ma génnee ma gis lu doy waar ci réew mi booba laa waxoon ni deret yu baree bari namm naa tuuru fii Sénégal te mi ngi nar a amee ci sababu bëgg-bëgg président Macky Sall wallahi wal quran loolu ku ne gis na ko te lii ñëw ci kanam moo gën a doy waar mhm. ci laa leerale woon tamit ni képp kuy patriote wala ngay homme de valeur boo xamee ni yaakaar nga ni sa réew mën na baaxee ëllëg ci Ousmane Sonko defal loo man ngir protéger ko parce que Macky Sall ak gàngooram seen yitte yëpp lenn la moom moo di fexe ba Ousmane Sonko du bokk ci élection yi loolu defe naa ne tey jii leer na naa ñi yegg nañ foofu. Mhm. waaye nañu tàmbalee nañu nañu dugg ci wàllu yu ma yàlla may. bu ko defee bu ma noppee ñu daa ñu ñu ñu daal di mujj nag wàllu actualité. Mhm. gis nga man Mouhamadul Amine mënumaa ñaanal nit ki te seetalu mu ko ndax damay faral di wax ni njàqarey nit ki bu am néega seet mooy buntu bi ñu koy jaare mhm. ndax alxur alxuraanul karim def ni waatul buyuuta min abwaabihaa lu nekk dee leen ko jaare ci buntam mhm. te jàpp naa ne njàqarey nit ki bu doon am néega seet mooy buntu bi ñu koy jaare li may def nag da daanaka seet leen koy tudde waaye doonu seet gis la gis ndax doomu aadama bi fu mu mën a nekk ci addunaam bu fataa teng loxoom bii rek yónnee ma dinaa ko leeral lépp luy ay jafe-jafeem ànd ak lépp lu ko gàllankoor waaye ànd ak lépp lu koy saafara boo amee sarax yu gën ci moom a tegtal ko seet nag lu ama am solo la parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni maanaam euh, ñett ngi nii yoo xam ne nit ki bu ci dugg war na koo seet ba noppi door caa dugg mooy lu mel ni kër ak soxna ak daaba maanaam baraana ba tay nit bari lool alali adduna wala barkeb sox adduna dugg ci yooyu benn rek da cee daal di ay gàllankoor maanaam baraana loolu nit barale wàllu àdduna lool jënd oto bakkanam des ca mhm. wala mu takk soxna commencé nekk ci jafe-jafe wala tawat mhm. moo tax seetlu am solo la benn aaya ngi nii ci alquranu karim ci suuratul bakara aaya boobu war naa tax mahamadul amin lépp lu doomu aadama bi dugg mu seet ko aaya boobu moom moo di xasa an takrahu shay'a wa xayru lakum wa xasa an tuhibbu shay'a wa huwa sharru lakum wallahu yaxna wa laa taxlamoon mhm. maanaam euh, doomu aadama yi maanaam yàlla dafa ci alquran daan amaana ngeen bëgg loo xam loolee loolee ngeen di bëgg gënul ci yéen amaana itam ngeen bañ loo xam loolee ngeen bañ moo gën ci yéen yàlla lu mu ci teg wallaahu yax na wantum laa taxlam yàlla xam na te yéen xamoo leen yàlla nag xam googu mu xam ci la xamale ñenn ci ay jaamam te loolu moo di wattaqullah wa yuxallimukumullah mm-hmm. ragal leen yàlla ragal leen yàlla yàlla xamale leen boppam moo tax ñun li ñuy seete du xam-xamu njabar xam-xam la boo xam ne turu yàlla la wuntar bi yow ci nitu yàlla ba mu yëkkati ko jox ñu gis nga nit ki fu mu mën a nekk ci àdduna bu fataa teng loxoom bii laa wax wallahi dinaa ko leeral bépp gàllankoor bu nekk ci moom lépp li ay tolluwaayam dinaa ko leeral doomu aadama bu ñëwee ci man na ne ma sëñ Abo seetal ma rek mhm. seet nag lu am am solo la waaye nag nit ñi nañu wattandiku di dem ci njabarkat yi ñii seeta ci béjjën ki xaawa ki pettaaw di di leen seetloo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na ñii seeta ci loolu waaye ànd nag ñay dem ci ñoom te yonent bi nee na nga dem ci ñoom ñooñu di seeta ci pettaaw ki xaaw ñu wax la nga gëm ko rek danga toog ñeent fukki fan yoo xam loo ñaan yàlla yàlla du ko nangu moo tax seet am na solo waaye nag dem ci ñu yor xam-xam boo xamee ne la ñuy seete maanaam lu lislaam gërëm la nga may ma ci biir seet googu itam maanaam ci laay jaare ci laay jaare xam doomu aadama bi ban yoon laay war a jaar ngir ñaanal ko maanaam gis nga Lamine yow gis nga kër gi ni mu bindoo maanaam nit ku nekk nga fi fekk mm-hmm. waaye li ma yàlla dénk ci xam-xam wàllu bind li ma yàlla dénk ci xam-xam boo xam ne damay yëkkati jox doomu aadama ko sangul wala takkal wala ci jaaro maanaam tekkiwul ni nit ki day ñëw rek ni ma ñaanal ma ma yëkkati yooyu jox ko déedéet dama lay xoolal ba xam ban yoon la ñuy jaar ngir ñaanal la mbaa xam nga ne nit ki ñaanal ko dafa am yoon uh-huh. tey ji ci misaal nit ki tabi xam bu doonoon sawara saafara si nga yor lu baax baax soo ko doon jox buy sangu sax day gën a dellu ginnaaw moo tax nga gis nit ni la dem naa fu nekk sangoo naa ba sonn takk naa ba sonn waaye day mel ni sax damay gën a dellu ginnaaw looloo ko waral maanaam ñi koy ñaanal dañoo xamul ban yoon la ñuy jaar maanaam nit ki am na nu tabi xam di taxawee noo xam ne sarax mooy defal mbiram am na nu tabi xam di tëdde noo xamante ne si ni bind jox ko mu sangu mooy defal mbiram am na nu tabi xam di tëddee noo xam ne sangu defarul mbiram takk defarul mbiram waaye ismulaay ansam wala xalwatu mooy defar mbiram loolu yëpp nag ci seet laa koy xamee waaye ci li nga wax léegi ci li ñuy dikk ndax ku ni sëñ abo xam ko ci dugg xalwa yu bëri yi nga xam dina koy def ndax jafe ngaa gis jafe ngaa jot dugg xalwa da nga koy faral di def lu bëri ak ismulaal azam bi nga xamante ni yaa ngi koy tudd lu bëri est-ce que mën nga ñëw dikkal ci ñaar yooyu nga xamante ni miin nga ko lool maanaam dafa gis nga ñaan yàlla man damay faral di wax ni gis nga yàlla xam-xam yu yéeme yi ma dénk ay ati at ma yàgg cee ñaanal doomu aadama bi yàlla yàgg ma cee suturaal maanaam xam yooyu maanaam doon defal doomu aadama maanaam damay wakkiluwaat ci yàlla rek maanaam yaakaar ni yàlla dina ma ko nangul te waxtu wu nekk na yàlla dama ci suturaal ndax maa ngi sàmmonte ba lépp du ma lekk dara lu xaraam te sartu yama ko nit yàlla yoo joxe woon itam maa ngi koy matale moo tax ñaan yàlla dangay ñaanal doomu aadama bi yàlla waaye bu dee xalwatu nag moom mooy loo xamante ne si da ngay ñaanal doomu aadama ba gis li nga koy ñaanal jëxërën ni ko àdduna di nga ci am nangam ak nangam nangam ak nangam ndax xam nga xalwat dafa doon yéeme loo xam ne neexut a leeral ci ku ko xamul ndax euh, bëgg-bëgg doomu aadama bi dafa jàkkaaroo fukki bunt ak ñaar yoo xam ne bunt wu ñu nekk dafa jàkkaaroo turu yàlla woo xam ne boo duggalee nit ki xalwatu turu yàlla woo turu yàlla wu ñu nekk da nga ko wér du fukki junne ñaar ba fukki turu yàlla yëpp mat léegi nag boo koy wérdal doomu aadama bi maanaam li mën a dikkal doomu aadama bi ci gën a doy waar dafa jégg dayoo doonu loo xam ne nit ki day fatu rek di ko defal nit naanaam maanaam euh, day fatu rek di ko ñaanal yii koy dikkal mooy doy waar moo tax xalwatu moom la ñu wax duhaawul maanaam xalwatu dafa doon loo xam boo ko dugg leen nit soo génnee man nga sax ni ko nangam ñi at mu wala des ci kaw suuf wallaahi kasaalika wàllu wërsëgam même wërsëgam bu gàttoon sax mën nga ñaan yàlla ci biir xalwatu ba wërsëgam mel nu ne moo tax xalwatu du ku nekk lan koy defal moom la ñu wax du haawul akbar doonul lu yomb nag moom doonul lu yomb ismulaay ahsam itam xam nga yàlla def ni walillahi lasmaul husna fadduhu biha am naa tur ya gën a rafet woo leen ma ci nga xam ne yàlla tur yàlla yëpp boo ci ñaan yàlla yàlla mën na laa wuyu waaye nag am na ay benn benn tur yoo xam yàlla du la delloo mukk langa doon ñaan moo tax mu ni walillahi lasmaul husna fadduhu biha moom yàlla moo wax ci suratul ahraf ni am naa tur ya gën a rafet woo leen ma ci am na nag ay tur yàlla yoo xam ni dama koo tërbiyewu ci nit yàlla ban yëkkati tur yàlla jox ma tur yàlla yooyu jox ma wallahi tur yàlla yooyu duma ma toog mukk defal ko nit ak waxtu wa dëppoog biddiwam te yàlla defaluma la ma bëgg ca doomu aadama boobu loolu xam-xam bu soob yàlla ba noppi la man yi may gën di dogu man li may gën di dogu ci ni yàlla dama dana ma fekk si lii la muy xalwatu xalwatu ak ismulaay ahsam ak euh, wàllu li may faj li may faj moom comme ça tey yi bu dee ci wàllu kàttan ak yeneen yu ni mel maanaam yooyu ni ma ci yàlla maye doonul loo xam ne da naan insha allahu taala ak yooyu dëgg la sax wala na li say inni faa sal xadan illa an insha allah ab julli sëñ da wax dara lu may insha allah wàllu faj ak yooyu di ci làqatoo ci incha allah loolu ak naafeq la def gis la war a doon. maanaam nga xamante ne si ne xalwatu moom bu mu ko defalee doomu aadama bi damay gis lu li yàlla war a def ci ci àddunaam moo may gën a leer sama juróom baaraam yi. moo tax euh, ay xam-xam la yu yéeme yoo xam ne ngir samp doomu aadama maanaam li may faral di wax daal Mouhamadou amin waaw du ma mukk di wax ne. Mhm. doomu aadama bépp doomu aadama boo xam ne dem nga fu nekk ñu jox la lu nekk nii la sangul jox la lu nekk nii la takkal. Mhm. dig la lu nekk te taxul nga mën a gis dara sa bopp wallahi laa tax taqnatoo min rahmatillah maa ngi lay wax mukk ni la bu naagu mukk ci yërmande yàlla na la yàlla defal tawfeex nga jot ma yomb maa jot téléphone nag ndax yaakaar yi daf fee bari man moom lu leer laay wax yaakaar yi daf fee bari boole ca itam ñi may dikkal dafa bari parce que téeméeri nit bu ñu toogee junni nit di la woo nga bëgg jël junni nit ñi ci misaal maanaam da ngay ñu toog rek moo tax képp koo xamee ni woo nga ma yàlla def jotuloo ma bàyyil ma message vocal waaw te nag maa ngi leeral leen lu am solo. waaw sama xam-xam maanaam nit ki bu ma jotee jafe-jafe yu mu mën a toll ne ni ma sëñ Abo damaa bëgg nga seetal ma sama seet nag dan may fay ku ma fay duma la seetal parce que sama xam-xam dama koo tërbiyewu ci nit yàlla forantu wu ma ko de bokk maa ñi nga gis ci télé ñu naan la jëlal lii sàngam ak déedéet sama xam-xam dama koy tërbiyewu nit ki balaa muy xam ne yàlla maye na ma mooy nee na ma sëñ Abo seetal ma nit ku nekk moo xam ne boppam waaye dina xam boobaa ni yàlla may na sama xam-xam nag dama dan may fay ma door a seet leer na parce que damaa tërbiyewu nit yàlla ba àgg sax ci di ko layal suuf ak di ko raxasal ay wana ngir sàkku xam-xam mhm. xam-xam boo xamee ni day ànd ngërëm tey jii nag rëccuwuma ko mhm. moo tax ku ma fayul du ma la loolu na leer nañ mhm. macha allah ku ko fayul moom sëñ Abo du ko seetal waaye dafa am feneen fu ñuy jàll muy waxtaan wu am solo sëñ bi lan mu mën a gàllankoor nit ki ak nit ki bu amee gàllankoor ci àdduna bi bu ñëwee yan saafara nga koy def. maanaam Mouhamadul Amine nit ki li ko mën a gàllankoor dafa bari lool te wute dafa bari lool waaye mën naa bañ a génn juróom yi nga xam ne alxuraan ci jëmmam moo ko tudd. yàlla ci boppam waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent bi waxal ni yow yàlla yàlla na nga ma musal ci juróom yi juróom yooyu mooy yan. min sër yi nekk ci alxuraanu karim min sari maa xalaqa ak min sari xaasin saa xob ak min sari faasal fi mu xada ak min sari xaasin saa xasada ak min sari waswaasil xannaas gis nga bi ci jiitu moom la Serigne Touba tënk ci bayit woowu muy wax wakkun muñu sal nanaa min sari si xasadin max sarafam wa saraxin yàlla bi ci jiitu mooy iñaan gis nga iñaan daa mën a gàllankoor doomu aadama doomu aadama iñaane la rek dalaa mën a ray du samay wax waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi nee na sulu su xubóoru ummati min alxasadi sama xeet wi faatu ba nekk seen bàmmeel boo leen xaajee ñett xaaj benn xaaj ba iñaan moo leen rey oh. ñaareel ba mooy gimiñ cat ku ne xam na ne bu rëyut semmal mm-hmm. bari na lool ñoo xam ne seen mbir day dox ba mu wóor leen ni seen mbir ñuy dox maanaam ñu xëy rek seen mbir yëpp taxaw taxaw goo xam ne da leen yéem sax mm-hmm. cat moo leen di sonal maanaam ñetteel ba mooy bët xam nga dama doon iñaan yonent bi dañ sama xeet bu leen xaaj ñett xaaj benn xaaj bi iñaan moo leen rey waaye bu dee bët nag yonent bi dañ ñi ëpp ñu faatu sama xeet wi ñi ngi faatoo ci sababu bët aksaru man yamootu min ummati ba'da qadaa illaahi wa qadrihi bil hayni waxe yonent bi la ba ko ñeenteel mooy njabar njabar ku ne xam ne lim mën a def doomu aadama mm-hmm. muy def def mm-hmm. maanaam moo mën a fekk koo xam ni allahu akbar gis nga liggéey dafa doy waar mm-hmm. li ci gën a yéeme rek mooy lam doon def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay def nit maanaam diisal yaram bi gann ba mel ne lu mu sëf lépp lu mu am yaakaar yaakaaram tas képp ku ko dig ba yaakaar ni kii war na koo mën a jox sax man day mujj loola am maanaam yaakaar joojo sooy muy dëkkee maanaam yaakaar yu tas ak yaqule yoo xam ne kii maanaam njabar moom nanu ci yàlla musal ci wàll wu nekk la bon ci jëmmi doomu aadama bi ak ci diggante nit ki ak njabootam ci diggante nit ki ak euh, soxnaam bëgg a juróomeel nag nga xam ne foofu la yam yi mën a gàllankoor doomu aadama moom mooy rab jinne ju bon rab lim mën a gàllankoor doomu aadama dafa bari ba jéggi dayo moo mën a gàllankoor jigéen ak borom këram gàllan euh, maanaam gàllan maanaam borom kër ak euh, jigéenam parce que li gën a néew rek maanaam li muy xabtal doomu aadama bi di yékki-jékki mel ni lu koy merloo te kenn du ko def dara wala amee xol bu naqari boo xam ne xajoo nit da koy jafe mm-hmm. wala tey jii nga xam ne lu tuuti rek ku ko yàlla boole mën na cee dëngoog moom wala tey jii jékki-jékki fit wi naan tëf-tëf rab day def loolu mën nay dem ba nekk ci awraw doomu aadama bi góor mhm. maanaam awraam jotoon mu di ko delloo nga xam ne même bu taxawoon sax da ngay jékki-jékki rek mu mel nu sagar te ji loolu bari na ñoo xam ne rab day teg loolu maanaam a na nekk itam ci buntu tuurukaayu jigéen nga xam ne saa bu jigéen jooju tollee fenn maanaam mu ëf loola loolu yàqu nga xamante ne si bari na ñoo xam ne la leen am tout tànk rab la ak wàllu yu baree bari yoo xam ne man daal doomu aadama bi Mouhamadou Amine bu ñëwee ne ma sëñ Abo damaa bëgg nga seetal ma mhm. moom mooy buntu lépp moom fu muy jaar rek ci bunt bi lay jaar à chaque fois waaye sëñ bi dañuy dikk ci actualité ah xam naa nga defaraat toogaay bi defaraat lépp ndax waxtaan bi dina tàng tey da nga génnoon lu yàggul ne Ousmane Sonko nañ ko protéger ndax wóorul mu dem élection 2024 bu pexey nguur gi anto lan moo taxoon nga génnoon waxoon loolu ak foo ko teg. Mouhamadul Amine na ma ñëpp bàyyi xel te déglu ma. day hmm. dinaa wax lu yéeme sénégalais waaye dama bëgg balaa ñuy balaa may agsi ci loolu dafa bari ñu may woo fu nekk ci àdduna nga may rek ma wax ci loolu tuuti. dafa bari ñu may woo di ma jàmbat seeni doom rawatina waa bitim réew seeni doom jaar yoon woo xam ni gënalu leen. ñu di ma ko jàmbat. ma di xamal may xamal ñëpp nii leen gis ngeen yàlla damaa dénk noob gu yéeme ca diggante nit ki ak soxnaam. maanaam képp koo xam ne sa soxna ragal nga ni moo ngi jaar yoon wala neexut wala ab tànkoom ma ngi randu na la def tawfeex nga jot ma waaye képp koo xam ne sa njaboot. maanaam bëgg nga leen a noot ba foo leen joxoon ñu jëm fa te duñ ko sañ a bañ na la yàlla defal tawféex nga jot ma mhm. man daal jafe-jafe yu doomu aadama bi man di dund ak yu mu mën a doon na ko yàlla defal tawféex mu jot ma mhm. gis nga loolu nga wax ci wàllu euh, Ousmane Sonko moom ni mu mel yàlla moom moo ko def gis nga Ousmane Sonko yàgg na ma leeral ni boo ada doon boo ada doon aw turam mhm. maanaam turu yàlla wi mu dëppool moo ngi dëppoog as saaxiru te Ousmane li gën a yéeme mooy tabixam boo ko doon xool ngelaw la maanaam li gën a yéeme rek moom fi ne nii maanaam pexe saaxir yi ngeen gis. waaw wallaahi bari na trop ay pexe baatin yu gën a yu gën a doy yoo xam ne fexe nan ba tàyyi ngir rey Ousmane Sonko. te mënuñ ci dara saa buñ ko naree rey ci ñu ko jege lay dem. Mm-hmm. wallaahi la ko la waral mooy Ousmane dafa doon koo xam ne nit koo xam dafa xam lu yàlla def ci moom. xëy na sama digg moom tax na du ma ci di wax yu bari. nga may ma ma jëmale sama kàddu ci. kii fii kii kii nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi muy Macky Sall Sall dama yàgg a wax ni ay waay rikk na bàyyi xel yàlla ci jiital gi mu ko jiidal ci askan wi te xam ni kat wallaahi bu yaakaaree ne nguur gi maanaam ci lii mu toog yàlla daf ko ko jox ngir xam-xam bu bari wala ngir ak juddu moo ngi nax boppam parce que lu ci nekk ñu ko ko ëpp fuufam fi. Oh. yàlla xam na ko. te man li gën a doy waar mooy Macky bu yemoon ci duñu wax sax muy deñ nga Euh, lu sénégalais yi mën a dund ci mettit ak doy waar moom lii yi mu boole moo këpp parce que dafa mel ni ak daraja ji ko yàlla jox daf cee boole di dëgëral li ñu wax sàcc ak fen ak wor ak nëbb dëgg ñu baal ma nag ci waxin parce que dëgg du nooy ndax li tax mu koy dëgëral mooy ñi koy def la jël taf leen ci seen bopp. ñiy def loolu la jël taf leen ci seen bopp. ba noppi itam boole ca gi maanaam moom ci boppam. moom bu yemoon ci défendre ñooñu rek nga ni waaw waaye daf cee boole nag moom ci boppam muy wëlbati muy wëlbatiku maanaam lam ñu doon wax muy génn ci loolo di ñu wax lu wuuteeg dëgg. Hmm. nga xam ni kon wor na askanu Sénégal wépp dafa mel ni booy xool sax danga naan Macky Sall ñun dañoo jëppiwut ay doomu aadama wallahi Macky Sall jëppiwut aw askanam ay doomu aadama parce que ñoo taxawal wax leen ba tey man ñaari man mandat laa mën a yem maanaam tey jii ngay wëlbatikuwaat di jëm ci leneen kon kooku respecté wuñu kon doomu aadama yi maanaam nit ñi nañuy yeewu Macky Sall nag li ma la daan wax laa lay wax nguur gudul nguuru yàlla dafay jeex ëllëg du añ du reer waaye mat naa sedd de bàyyil xel ni bu ëllëgee yowmal xiyaam borom bi subhaanahu wa taala moo ngi wax ci alquraanu karim ci suratul xàqa di wax ni bu ëllëgee di gis koo xam ne day dóor loo ci suuf naan maa ax na an ni ya aleyka an ni sultaaniya maanaam alal ji ma yàlla joxoon ci àdduna moo ma nga gis koo xam ni danaan ndombal tànk li ma yàlla joxoon ci àdduna moo ma bu boobaa nag fa doomu aadama bi di rëccoo yàlla danaan xuduuhu faqulluuhu summal ma salluuhu day wax malaaka yi ni leen jël leen ko ngeen sànni ko sawara maanaam Macky Sall la ma yéene sama bopp laa la yéena bu boobaa ëllëg yowmal xiyaam waaye nag maa ngi lay alerte nga bàyyi xel wax yàlla jooju yéene wu ma la loolu mukk de waaye bàyyi xel ñiy wax loolu bu ëllëgee na nga xam ne nag képp ku la mën a diggal lu dul lii maanaam ni la maanaam nga jël réew mi delluwaat ko ci ngor gi la ko joxe woon mhm. ma lay wax lu dul dëgg te fi mu ne nii li ma doon wax ci njëlbeenu émission gi dafa mel ni maanaam li gën a yéeme mooy nit ñi dafa dem ba dëgg gi leer naññ ci ñoom waaye dafa mel ni dañoo bëgg weccandiku comme nitu firxaw na ya maanaam Macky lii ma bëgg képp ku ci ànd ak moom billaahi yàkku jamonantoo noon firawna nga ànd ak moom ca la firawna bëggoon yéen a yam fa saxa fa xawmahu fa ataahuhu innahum kaanu xawman faasixiin kon nag ma Sall ñëpp ñuy ànd ak moom ci lii na leen wóor ni billaahi ay nit lan ñu alku ñoo xam ne daanaka moog ña doon topp firawna ñoo yam wala sax ñeeta na leen hmm. waaw moo tax daal maa ngi bàyyiloo xel Macky Sall maa ngi bàyyiloo xel Macky Sall maa ngi bàyyiloo xel Macky Sall ni ko réew mi du réew moo xam ne daf ko dond ci maamam wala lenn bu doon réew réewum royal la moom ci boppam maanaam réew moo xam dañuy xool ay buur ak yooyu moom ci askan wa gën a suufee lay bokk. kon loolu na ko bàyyi xel na ko bàyyi xel xool ngor gi ñu ko joxe réew mi. Mm-hmm. loolu na ko bàyyi xel na ko bàyyi xel laalo na bàyyi xel ngor gi ñu ko joxewoon réew mi dama waxoon nag ni deret ju baree bare namm naa tuuru. ci ngir bëgg-bëggu président Macky Sall loolu nag nañu dem ba ci kanam mbaa xam nga ne Mouhamadul Amin alxuraan laa téye maa ngi seereel yàlla ni réew mi saa boo xëyee ñu ni la mujj na ci loxoy militaire yi maanaam maanaam maanaam bum la bett hmm? wallaahi wal quraanil xasim billaahi wal quraanil xasim li wérte wér moo di maa ngi jàkkaarloog deret ju baree bare joo xam ne mi ngi nar a tuuroo ci sababu bëgg-bëgg président Macky Sall li ma wax nag maa ngi koy seeral yàlla mi nga xamante ne si moo gën a jige sama buumu xol. waaw ma gën a jige sama buumu xol. Ah, oh. waaw kay moo tax euh, tey tey daanaka xam naa say boo ma jaare foofu rek tàggatoo maa ngi dénk ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu wii di ñaan yàlla mooy nañu ragal yàlla. nañu ragal yàlla doomu aadama yi ni jëflanteel ay waaye bu ñu lekk mukk seenu dërëm ci neen te lépp lu ñu wax doomu aadama yi rikk na doon lu ñu man ndax borom bi subhaanahu wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla li ma taquluuna maa laa tafaaloon saa bu ngeen gisee may faral di tàggatoo lii dafa bari ñu may woowee fu nekk naan ma man de si ñaboo jëflante naag sëñ jiw jëflante naag sëñ bu nekk waaye dafay mel ni ba nii daal mhm. taxul ma ma maanaam maanaam am na ci ñoo xam dañuy egg sax ba naan na dan lay woo du leen jot waaye nag jàpp leen ni képp koo xam ne jëflante nga ak nit ba yaakaar ne nax nga ko naxoo ko de wallahi sa bopp rek ngay nax te xam ne wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan ku nekk da nga ak sa borom ba yaakaar ne yow rek la loolu daal maa koy tàggatoo di ko tàggatoo di wax ni nit ñi nañu bàyyi xel ni wattaqu yawman turjaxoona fiihi ila allah summa tuwafa kullu nafsin maa kasabat summa tuwafa kullu nafsin maa kasabat faa tuwafa kullu nafsin maa kasabat loolu nag dafa mat a bàyyi xel ku ci nekk kem la nga jëfoon rek lala yàlla di fay moo tax ñi nekk ci wàll wii maanaam nañuy bàyyi xel seen digg ak seen borom ci doomu aadama yi ni jëflanteel dégg nga bu ko defee tey moom nan ma jéggal xaw na ma waxe àll li ma bëggoon a wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafay mel ni sax waxuma ko dafay mel ni sax waxuma ko ndax ci njëlbeen yaa ngi ma doon wax ci defarsu maanaam Abdoulaye Diop ak euh, Sumbalu Bàccale wax dëgg yàlla wàll yu mel noonu dama ci bëgg di maandu bu baax ndax man xam naa bu baax li muy moom Abdoulahi li mu yéene sumbalu ak taxawu gu mu ko taxawu kon bu seytaane doxee seen diggante yàlla na saa borom àndele seytaane soos amiin waay amiin waay man du ma bokk ci ñi ci waxee ci beneen wàll mm. waaye daal li ma gën a yitteel mooy ñëpp ñu réew mi ñor ay waay nañu taxaw wax Macky Sall dëgg jot na de nañu taxaw wax Macky dëgg ah ku ci waxut nag na la wóor ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ moo yaa ngi ci biir yow seytaane su lu seytaane su mënta wax yéen a yem yonent bi nee na asaakitu xanil xaq saytaanul axras wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal tey Serigne Abo. tabaarakallaahu ak xaal la waxee yaramam dafa tàng macha allah ndax xalwa gi nga xamante duggoon na ko génn ñu jox ko ay information yoo xamante ni neexu ko dara dara dara ci lim nekkoon ci biir moo tax émission bi tey neexul bi ñëwee tamit fekk nañ ko ak gis ngeen tabaarakallahu ak melokaanam bi ñu namoon ko lool fas bëggoon a waxtaan ak moom waxtaan wu gënoon a yaatu ngir xam-xam bi nga xamante ni mi ngi ci moom rek mu mën cee jëriñ mbokk internet yi nga xam ñoom ñoo ko doon seetaan waaye fa la ñuy jaar rek jox di jox leen dig seen beneen émission jërë ngeen jëf